bind ci lettre bu am solo uh-huh. lettre boo xam ni maa ngi ko denc ci sama album famille mm-hmm. ah, ndax dafa am lettre yoo xam ni mook sama photo famille la bo yemale mm-hmm. ci sama album famille la koy denc lettre bu amul morom comme bi nga xamee ni euh, waaye université bu Pire bi bind nañ ma ko ci sama biir album famille laa ko denc ndax rafet ga rek ak itam xam nga ñu xamoon li ma joti woon ak seen maam maam mm-hmm. Penda Yéré njabootu maam Serigne Touba la ci biir néegam la nekkoon waaye xaritu benn bakkanu maam sa wetu ña ngi la woon ñaar yëpp mu boole ko ma xam ne bii expérience duma ko bàyyi mu def mukk bu defee su ma amee jot rek dem ci jigéen ci mu di ma wax may bind mu di ma wax may bind mu di ma wax may bind ba faf rek tabarkal la tabarkal la xale yi ma bind lettre bi mosuma gis mukk doomu soxna yu man di gaarab comme ñoom waaw dama daanu wallaay ndeysaan ñu ni ma nag sa tànk ya daan yëngu ci ëttu jigéen ja yoon tey ma nga fay yëngu walaay ndeysaan loolu kenn mësu ko gis waaw ah dama amoon ay maam yoo xam ni dañu nekk sama xarit maam yu jigéen ak maam yu góor moom nag ci sama maam yu jigéen yi doon sama xarit ak ñoom maam dokkoog ñoo ñëpp waaw su ko defee maam yu góor yi nag itam ma fexe ba sama relation ñoom na mu gën a jekke ma ma defe ko noonu bu ko defee jigéen ji comme bu ziar jotee ziar général laa wax bu jotee ñu war a seet si sëñ Babacar boobu mi ngi suuf man ca fajar lay génn jël sama carnet dem parce que coow li du ma fi fekk mukk bu ko defee nit ñi ñëw woy seen woy ba mu neex leen nangam nangam def seen cirque dem seen yoon waaw man ma ñibbisi ko defee bu ma dawee maa ngay dem toujours ci kër jigéen ji waaye bi ci mujj nga xam ni kenn desul dafa mel ni nit ñi dañu yogoon ni sëñ Babacar dafay dem ziar bu mujj bi kenn desul waaye ñu ñëw fekk sëñ Babacar feebar mais soxna su mi xam ni feebar bi du feebar parce que góor gaa ngi faj soxlaam li ko daal nit ñi daal boo waxtaanul ak ñoom daañu dee ci àll bi ndax seen déception dana àgg fu nga xam ne duñ ko mën a supporter kon nag mu ngi lay ñaan ñun ñëpp famille bi nga génn waxtaan ak nit sëriñ Babacar Si ni ko nañu wax cheikh mu waxtaan ak nit ndax moom du fekkee ziar waaye bii maa ñaan ni ko na toog te xamul sax lu ma koy doy waaw noonu mas siis ñëw woy si ma mas ku bare yitte la ñëw seet ma mi ma daan woyu toujours Seydou Sadat moom rek la ma daan woy waaye du ma woy sama tur mukk ñëw rek ni ma Sidi Sadat kay wuy góor gi ma ñëw ngor gi ni demal nga waxtan ak nit ñi parce que soxna si kenn du ko déglu ma dem waxtan ak nit ñi soxna si ni ko nag bu waxtan ak ñoom nit ñëpp dinañ xaru ndax dañu xam ne da nga feebar waaye ba ma waxtaanee ba noppi nit ñëpp di fecc yàlla xam na ni bu góor gi waxtaanee ci mukk waa doyal na ci moom sikk wallaay ndeysaan loolu daal ma soowee affaire ba pour wax leen ni yii nit ñiy wax c'est que dañu jaar foo xam ni dañuy jàpp ni yii rek ay enfantillage du leneen waaw il xaleel rek il faut xaleel rek waaw nag ngeen taxaw da ngeen organiser xam ni da fi fekk benn aristocratie bu nga xam ni masul am fenn te lu yéeme la waaw te da ngeen ci am nag ñu amul morom dama mas wax sëriñ Tijane si ni ko ca Dakar ba mu ngi nekk foofu ci wetu Gueule Tapée maa ngi ànd ak Babacar Diop ak Alaaji Gan Seen ma ñëw rek mu daal di commencé di ma defaral café daf ko daan def moog Serigne Cheybatu yëpp Serigne Cheybatu ku am teranga boo masaan ñëw rek ci néegam la muy jëkk a def mooy defaral ma café wallaay bu ma nee dama yàkkamti mu ni kon nag ma jox la ndox bu sedd ndax ndox bu sedd am na lu muy faj ci nit te wax na dëgg waaw bu ko defee mu wutal ma ndox bu sedd bu fekkee sama xol tàng dafa am seddaat guy wallaay ndeysaan ba tax na ñu dem seeti sëriñ Tijaan ma di ko tooñ ma ni ko góor gi yëg nga nii ndakaaru dootuñu sol mbubb mu ni ma lu tax dafa ne lu nekk la ma ni ko parce que li nga génne turki nii moo tax ñëpp turki la ñuy sol ndeysaan wax ko mu kontaan te dëgg la woon moom lu mu masaan sol bu génnee cadre yëpp moom la ñuy sol yàlla ko defaloon wallaay ndeysaan ma ni ko nekk mannequin nga ma ni ma lu ma def mannequin ma ni ko nit ñi ma ni ko yàkkamti nañu nga génn ak sa turki ba ñëpp di sol turki

yëf yi dafa simple ndeke simple loolu ndar yëpp dañ la fas yéene gunge ma ko ma ne ma waaw la fa sa eh, sa benn bàjjen jóge te mu ma ndar yëpp moo ci dàqale ni ma daal Birama Fatim lu ma sol ndax sama doom dafa passé <laughs> ne daal di dindi xaat francs may ba ma <laughs> ne ko léegi ma wax la sol nee na ko solal sagar su ko solal sa garab na mu ne ma lu tax nee ma tàgg ko ci kaw ba ci suuf ni ko boo solee sagar boutique yi dootuñu jaarale Sénégal yi yëpp sagar la ñuy sax nee ma kontaan teg ca dix mille francs ma ni waaw kay bii moo baax yàlla at si mu ni ma nag booy ba bàyyi ci xel ma ni ko xam naa na may def ñu bàyyi eh, bi ñu julleet جيبا نوبي ماني غام غام رك كي سيدي شيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه مو جوخ ما بن بابي مو اوبي كو فك مو بند بو خونق مو جوخ ما انستريسيون يما وارا جوخ ييب تي افير نيما بولا كين غونغي نك لا سلم سوبا رك هي اوسي لو جو نكو نان ديم واو ندخ افير بي بي غونغي ام موك ني ديم با دلوسي كين يغول مسمي كو بو جيك salat bi sama mel ni bougé wu ma xam na ko ñu toog ba yor yor gaa sañ sañse fu nekk nit jóge fa ñu ngi soow comme Serigne Moustapha moo président woon yoon wa mu ñëw rek fekk maa ngi sol pyjama mu ni ma way bi cheikh yow itam jógal solu benn parce que lo jant bi ma ne ko pour dem fan mu ni way yow yaa ngi nu indi ñun ñëpp nangam nangam ma ne ko mais dem naa fa ba ñëw ma ko dem naa ci fajar muy fabti ree nag defe ne dama koy tooñ ma ko naa dem naa ba ñëw ba affaire ba noonu la mujj sedd guy guy guy ngunge amul dara amul ndax ceyti lañ ko naroon def ceyti lañ ko man toujours loolu dama koy jëfandikoo ba tax na bu ma sañoon sama njaboot dañoo organiser ci boobu façon mm-hmm. ndax seen cër la mm-hmm. te cheikh itam wax dëgg yàlla xam nga ni fi mu toll mag ñi eh, ñoom naw nañu ko te itam jëfandikoom neex na leen te atelier bi mu amee daf ko bokk ak ay gor ndax atelier boo ko bokkee ak ku mel ni Sidi Harazim ku ci mel ni Sidi Tamasini ku mel ni Sidi Rayaaxi kuy mel ni al arabi yum nu ak ña des ak ña des nga xam ni kenn xamul nañu toll

na ko cheikh daan doxali dal noonu laa ko gisi bu ko defee nag bul waaw ma ñëw tuuti rek ma ñëw tuuti waaw fi mu nekk yaram waa su ko defee affaire la bu am solo ndax gis ngeen crise bi mu jur gis ngeen crise bi mu jur te lii ma leen di wax boo gisee ma di leen ko wax ci mbooloo c'est que dafa amul luñ ciy nëbb waaw amu ci crise bi mu jur gis ngeen ko parce que Cheikh itam c'est pas n'importe qui waaw ça il faut le dire waaw moom nag gaa ñi ñëwewuñ ko waaw daanaa ko Sëriñ Aliou Gueye mu ne ma non tey ma ne ko loolu du tontu ma ne ko du tontu waaye Cheikh crise ci di reyaax yi rek war na ci doy ku ànd ak moom parce que si di reyaax yi ku ne xam na ni xaritu cheikh la woon ku ne xam na ni itam yonent bi seetoon na ko cër ba looloo tax mu daan accepté pour mu représenter foofu loolu ku ne gis na ko moom benn nattu lu mujj am te moo doon dafa gës si di rifaay prestation bi mu def neex ko mu dem poñe cheikh di ko waxal yonent bi mu jox ma martaba rifaa yi cheikh ni ko duma ko def parce que mag ñi dañ leen di ormal loolu nag mel ni def ko naqadi te comme ay xarit lañu mu xaw jàpp boppam tuuti waaw ah, cheikh it bàyyi ko di ko seetaan mu dem dem dem lu mat juróomi fan seet siwul yooyu yëpp pour defe ni dina man def pression ci Cheikh te xamu ko sax masuma gis mu ku dëgër bopp comme suma turando mukk eh bi mu dellu seen nag dee dellu foofu Cheikh di ko laaj na def muy laa xaw a bone jikko suuf si ni ko oui mais yow yonent bi du la du la xañ dara waaw loo ko laaj mu def ko kon bu ma la waxee nga jox ma martaba rifaa yi war na mën nekk sànni ko kenn du ko def kenn du ko def mu mer dem toogati lu mat juróom-ñetti fan seet wul cheikh mu jumu jàpp ci yàlla ñëw dee lu fii sànni ko alxaal mu naan ko alxaal <laughs> yu kenn xamul cheikh xam ni dafa mer mu koy gunge nag mu dal di insister foofu alxaal

ndax aaridu mumtiru naaje mom le saisir dal di ñew rek ni tereñ ci buntu kër cheikh laaj ñu ni ko ah, joxe na des instructions nee fek ñetti fan bu ko gën dérange mu ni ma tax mu def ko waaye man fi lay tok ñetti fan duma lek lekk du dal di bind ben papier rek glisser ko Cheikh it jël papier ba jàng ko mu ni ko maa ngi fii ci bunt bi di fóon di fóon dénku sa bunt bi waaw fii laay toog di ko foon ba ba may dee du fi jóg Cheikh nag soo ko am ci moom ñëwent dal di koy ubbi yonent bi it yëg crise bi pour limiter les dégâts moom it mu def loo xam ni kenn xamu ko mooy mu xëy rek jël xaraasim def ko muy xalifa Cheikh te tàgguwul Cheikh waaw mësul gis loolu mu jur crise boo xam ni mësul am ci lislaam bi xëy def Harazim muy xalifa Cheikh Ahmed Tijani te tàgguwul Cheikh jëlul attache am yonent bi def na lool Cheikh opposé ci wetam purement et simple yonent bi insisté insisté ah cheikh it bëggul ko naqadi mu indi benn principe boo xam ni ñoo ko bokk mooy bu ko xasee def xalifa dootuñu man bokk continent mu dal di ko koy wax boobu yonent bi d'accord ci ñu wax ko xara euh, Sidi Harazim Sidi Harazim d'accord ci dal di fa bagage am yëpp ñëw tàggoog cheikh wuti fële ca yonent ba pour dem Madina mais mu génn mënul supporter affaire bi mu procédé euh, li ñuy wax suicide mystique mu rey boppam mu jeex parce que dafay am li te cay àgg suicide mystique dafa am comme ni suicide philosophique amee Socratul Hakim

parce que Socrate itam ki ko interpréter le suicide un peu mooy Ahmed Shawqi wallaay waaw wallaay ndeysaan yashtahi taqbila wallaay ndeysaan xam nga Socrate dafa yeew dafa xëy rek déclaré ni li mu ñàkkoon yàlla may na ko ko mooy xarit te def ni woon rek xarita yi yitteem ci àdduna yàlla jox na ko xarit nag mu ngay wuti cadeau bu mu ko neexale nekk xarit bi boppam lay wax seetal loolu xarit bi boppam lay wax nee na trouvé na xarit bi mu doon wut te mooy boppam waaye waxul ni mooy boppam ñëpp defe dafa am xarit fen mu ni ma ngay wuti lu mu ko jox pour cadeau ndekke poison lay wuti pour naan توازن لي أفرير خريطة بمجنة بقيت ماي بابا شفتي محب يشتهي التقبيل وهي غباء ولا شك ولا إنديسان ولا إنديسان ولا إنديسان وهي لول سيدي حرزين دف ولا دف موتاخ آه، شيخ نجم جو اكسبتي بور علي تمسيني انك خليفه آه.

parce que ñi bëgg di organiser mu mat million mooy ñi bëgg nekk député waaw waaye ñi bëgg nekk taalibe ñëw daanaka fukki nit doy na leen sëñ walaay ndeysaan donc loolu rek la ah terewul nag ñi bëgg nekk député it ku ñu ci gis te xam ne rek war nañ la jàppale ñu jàppale la parce que ay citoyen la ñu nag ay citoyen la ñu looloo ngi ci ndax dama amoon benn xarit bu amul morom ca tugal te daf daan wutal sëñ Babacar ay parfum parisien la nag parce que sëñ Babacar buggul buggul euh, ñi nga xam ne ay intermédiaire la ñu di jaay yoo xam ni piirewul moom daal yàllaa ko defoon rek muy nit ko piire sincèrement ba kooka di ko toppatool affaire u parfum benn bi sax maa ko koy wax ma ni ko dégg naa Maodo daawul daawul tuuro parfum bu am alcool yu màkk yi rek mu ni ma waaw Maodo nga wax man nag duma Maodo waaw man parfum yii la bëgg yu am kal alcool eh, kooku nag touché ma ni ma daal dafa jaaxle lool ma ni ko lu tax ne ni ma tey it war nga jaaxle yow parce que fal nañu Mitterrand te Mitterrand c'est un homme de gauche kon man maa ngay daw dem États-Unis damay ak sama famille ak yëpp ma ni ko nga ma ne lu tax ne ko parce que pas un homme de gauche ma ne ko en français c'est en français c'est pas un homme de gauche c'est pas un homme de droite a mais daw yóbbu famille mais mujj na ma jox raison parce que gis na li mu jëfanteeg man ni man je ne suis pas homme de gauche loolu moo ko dëggalal la ma ko doon wax moo tax def naa ci moom martie wallaay def naa ci moom martie parce que li mu jëfanteeg man ma suma ko Kama niko ndo homme de gauche, Mitterrand c'est un ji ko roi rek la amee wax ko waaye mujj na ko gëm pour wax la ni ki ñuy orienté ku am solo la te mooy sëñ Babacar Si ku am solo la yéen nag yéen a ngi ci loxoom tabarkalla tabarkalla ngeen organiser ko rek waaw rek te. diko acci acte pas waaw ndax mom rubba rajulin ka alf waaw wa rubba alfin ka uf wax ngeen def di jël contact ak ñu ko région yi parce que ba nit ñaa xër ci te man itam déplacement yi ma daan def mënatuma ko yéen nag bu ko defee ngeen jël contact ak ñooñu te ngeen dem ndar naa ndar ay yàqu-yàqu nga fa bu ko defee nu dimbale leen ci dafa fekk fa ndar toll nag mooy li ñu wax ni fu wundu nekkul nag foog ko janax tëgg fa sabar fu wundu nekkul foog ko janax tëgg fa sabar ñoo fa nekk di wax yëpp xam xam nañ ni teguñu ko ci dégg parce que bu ñu xam naa leen je les connais tous ay nit lañu yoo xam ne xamul sax lu xew di ko rek yëredi ko ba nga ni lii lu mu doon te mag nag du yëredi ko dafa sof mag du yëredi ko dafa soof ngeen taxaw ci lu mel noonu bi des mooy affaire régime bi parce que affaire régime bi am na ci ñoo xam ni li ma xam te xam ko mooy ennemi Ablaye Wade lañu man xam naa ko waaw li ma Alaaji Moustapha Niass wax am ñang Alaaji mustapha ñang bi nekkoon député maire bu Tivaouane am na mu di ma ko wax defe naa ca fan yooyu la gaañu parce que xale bu intelligent la waaw ça il faut le dire mu ne ma na nga seeti président Wade mu ne ma ndax li ma yëg mooy li daan xew rek mooy xewati mooy nit ñu fekk mag xeex régime ba mu jeex nga ñëw dugal ci say pexe di ci tooñ ay gor mu ni ma bu fekkee ni même moom dafa la jafe gis nga yebal Chamsuddin Ndooy mu waxtaanal la ak moom ma ne ko yooyu yëpp nag mën naa am nu dox ko waaw te fekk na dafa am ñoo xam ne dañu sew waaw dañu sew bu régime euh, taxawee rek ñu dëmp seen xol ba dugg ci commencé di tapas yenn yi waaw dafay am itam mag dañu ni ñaari loo ko def xam na ko lu mel noonu nun dañ ko daan doxal dañ ko daan doxal am na bis wax ko Senghor Senghor ni ma dama bëgg nga jox ma ay tur ma ne ko mukk ma ne ko parce que du ma sa agent ba di la jox ay tur yow yaa war a am yitte xam ñi yàq ñi dul yàq waaye jamais au grand jamais man yooyu dama koy doxal waaw ah, ko defee rek ngeen bàyyi ci xel ci façon bu nga xam ne gor yaa ngi ci dëkk bi tabarkalla tabarkalla te ah ndegam Maodo moo bëgg la ñu taxaw diggante culture ak dégg nga dox la ca war waxuma la nag yi ci des mu mel ni kon nag yi gën a yitteel fii ñu toll loolu ci la bokk ah, te Saint-Louis ci man ndax ah, Saint-Louis góor ga dafa am cër te comme xëy na Eh, sama mbokk ma rek dafa xaw wéet tuuti Amar dafa xaw wéet ndeysaan waaye ma ngay jàmbaare rek nag waaw waaye jàmbaare Babacar kanam jàmbaaram yëpp yàlla jël na ko ña ca des it noonu tabarkal tabarkal ngeen bàyyi leen xel te it ngeen di leen wallu waaw ndax itam dañu wax ni rek eh, rek boo amee sa waaye danga koy wallu waaw tabarkal la tabarkal la xeebuñu la fa ñoom Cheikh Tidiane yi di def tabarkàlla ndax ñu ngi koy defee kër Alaaji Tijaan Ñang ñu ngi koy defee kër Alaaji Tijaan Ñang te Alaaji Tijaan Ñang ku dëggu la Alaaji Tijaan Ñang ku dëggu fukki at yi nu ànd yëpp di dem tournée ñaari baat la waaw bu Cheikh ne wuy ma ni wuy bu ne non ma ni non foofu la yem te génn ci benn yoon te loolu doy na discours doy na discours sëg sëriñ Modou duggee moo daan wax ni eh, eh, dërëm laa ci sa poche bu la neexee jëndi suukar bu la neexee jënde kaani waaw ci koo xam ni kenn rawu ko ci réew te kenn gënu ko naqari deret Senghor nee na ma mësuma gis mukk ñu mel ni nit ñi ils sont dangereux ma di ko ñoo yey pour wax la ni rek tabarkal la sëñ Babacar may na leen ñu ngeen àndal waaw te lu nekk dañ ci bàyyi xel ndax affaire koskaas bii ngay dégg maa ko def waaw Senghor daf ma woo ci jamono boo xam ni dafa metti syndicaliste yëpp opposé ko étudiant yëpp opposé ko waaw mu ni ma nang ci def déclaration parce que yónnee naa ci sa Pape Falilou pour mu def ci declaration ndax yëf yi dal ndax mesure yi ñu jël mënuñu ci dellu gannaaw tànk yëf yi dalul te gàmm gi ñëw na barab mu ne ma ndax gàmm gi duma ci mën a yónnee ma ci mën a yónnee mukk ndax militaire yëpp dañ leen consigné kon duma ci mën a yónnee ma ne ko jarul nga di ci yónnee am na ci yu bare mën nañ ko def ma ne ko ndax mën nañu tànn ñoo xam ni dañ leen di former militairement ma ni ko loolu mën na nekk ma ne ko ba tax na yooyu bu mu nekkati problème ci sa bopp ñun mën nañu ci sunu biir rek wut ñoo xam ni dañu assurer sécurité affaire mu ne ma demal seeti ba xam noo koy defaree ci laa de organiser koskas waaw moo tax man mii maa ko organiser ci kàttanu yàlla walaay ndeysaan ak ci turu sëñ Babacar Si ba yooyu yëpp mi ngi fi waaw ñu seet rek naka la ñuy def mm-hmm. xëy na xel sax nekkul ci naan koskaas kaay ak déedéet waxuñu boobu mm-hmm. beneen façon la wax uh-huh. ah. mm-hmm. mel ni kon nag lool rek fi nekk oh. waaye itam autorité yi xamit li xew lan la waaw uh-huh. ah, naa itam ah, boo yilifee réew waruloo waruloo di bañ yu mel noonu uh-huh. ñu di la ci informer rawatina bu ñu la ci informer publiquement mu mel ni lool la eh, nëgë ni daaw bi ñu jógee ci gàmmu gi dafa mel ni ci li ma yëg presse bi ànd gouvernement bi yëpp defuñu seen liggéey waaw ah, kooku ñun ñëpp tawat ko waaye itam mettiwul ndax itam gouvernement bi dafa am ñu ko nekkal ak ñoo xam ni seen bopp la ñu nekkal loolu man xam na وين يبي يخرج ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون نخيال كو بغ سجيكو سل اكران بيجي سكنم دوكو لندمل موك دوكو لندمل إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار نخ نت écran fa mu jóge bu ñu ko soppee ci écran mu nekk ci kanamam dootul fàtte fa mu jóge te fekk fàttewul fa mu jóge jikkoom dafay gën a sell rek loolu la yàlla wax foofu moo tax di bàyyi xel fi nga jóge nii janoog moom lu am solo la dama am sama benn maam sama xarit la ñu di ko wax Alaaji Mor Amina Si mbokk bàyyu Sidil Hajj radiallahu taala anhu ci sama copain yi la bokkoon waaw ah, ndax man dama bari woon xarit yi mag wallaay sëñ Babacar ni ma yaa ci ëpp chance waaw ndax man kenn laa ci amoon sa maam Alaaji Ilimaan Saaxo moom laa amoon comme copain mag Maodo cautionné ko waaye yow am nga ci fukk tabarkal la li ma kon nag di leen toppatoo te nga dalal sa xel del toppatoo Cerno Muntaga Taaha del toppatoo sa baay Buna Alburi ndax daf la sob del toppatoo sa baay Masamba Mexe de rekk di leen lim waaye góor gi dafa ñëw ba ñibbi ma di ko gunge ci oto bi moom maam Alaaji Mor Amina mooy doom bàyyu Seydil Hadj Malick radiallahu taala anhuma ubbil ko buntu oto bi muy dugg daal di wax bismillah xam nga seen jikko yooyu rek waaw xam na ay militaire pur la waaw daal di wax bismillah wa samawaatu matwiyaatum bi yamini waaw daal ni ma mbaa daa di wax ma ne ko àddede ni ma dee ko wax nag boo dee dugg ci ma ne ko baax mu ni ma jox naa la ci ma ne ko baax gannaaw ba mu mel ni aaye bi musuma ko jàng xawma lii lan la waaye bi ma gisee góor gi ma wax ko ko ma ni ko aaye bi lan la firi dëgg-dëgg mu mu ni teg ba mu yàgg mu ni ma dafa mel ni sunu borom di lépp lu liggéeyam jeex dana yewwi loola waaw maana lu liggéeyam jeex rek dana jox loola retraite eh, mu ni ma wante bu dee asamaan nag foog nga jaaxle ndax buñ la nee sunu borom dana jox asamaan retraite am dangay jëkk xalaat mooy fu arrêté kursi di nekk da jëkk xalaat mooy fu ñoom jibril di nekk mu ni ma boobu nag du sa priorité ci ko ci suuf waaw ma ni ko ah waaw kay parce que dama dégg sunu mbokk chrétien yi di ñaan ni yal na nu yàlla delloo ci baatin ba mu ñu jële woon ma ni ko ñoom dañ koy ñaane waaye duñ ko firi ma ni ko mooy lii rek ñun itam bii ñu bàyyi ci xel te bañ ko firi parce que firi ko du suñu priorité mu mel ni kon nag yooyu yëpp boo amee ay kilifa jaar ak ñoom foofu te ma gis bés sëriñ Jóoba ni mu toll ci sëñ Babacar Seck ni mu toll ci tariqa bi maa ngi taxaw de benn carnet ngi ci kaw lal bi daldi dawal loxoom pour jël carnet bi sëñ Babacar jëkku ko ci jël ko ni ko ëpp naa de ni ko ndax li nga xiiboon rek doy na euh, mu ni ko dama defe noon sa diwaan la mu ni ko déedéet waaw testament spirituel bu cheikh mooy ci nekk hmm. ni ko moom la seetal testament bu kenn dul liir te xam nga loolu tabarkalla tabarkalla la ca ne doy na sëkk ci mën a orienté nit mën a orienté nit ba tax na itam lu mat a bàyyi xel la yooyu yëpp seen alal la yéen ko moom ba defee nag daayira bi tabarkalla man li ma ciy seetlu toujours mooy wàllu góor gi rek waaw wàllu góor gi rek nag dëgg la nag ah tabarkalla la euh, moom lu mu nekk rek loola euh, pas-pas daf cay feeñ par par nag du ca feeñ waaw ah, waaye pas da na ca feeñ te ñoom borom doole lañu euh, dama mas daje ak ku bokk ci kër Sidi Riyaaxi xam nga Sidi Riyaaxi xaritu sëriñ Aline la tamu suñu gisee ndax sëriñ Aline dafa fonk xam-xamam xom fonk lu nekkam yàllaate nattu wàcc foofa ci ñoom mooy beneen xeet dafa wàcc coloniser leen jox leen ñaari charte charte bu njëkk bi mooy teg leen impôt charte bu ñaareel bi mooy bu ñu dee correspondre ak moom ñu bañ ko defa arab xanaa def ko moom ci lu xam mu nekk ñaari diis diis chef politique ya fa ne bu ñu intervenir rek ñu rey leen si di reyax yi jël ay responsabilité dem ca siège ba fa mu nekk négocier affaire bi ba ñu bàyyi ñaari mesure yooyu yëpp keroog ba muy ñëw ñépp ko teeru militaire desul civil desul te amul lu dul sagaru kaalaam rek pour wax la ni nit ki bu amee pas-pas fu dara mën a tiise yàlla mën na ko dimbale ba mu woyof tabarkalla tabarkalla tabarkalla te mu bañ nekk rekk ci wàllu xëccoo ndax laysa minna man daa ila asabiya yonent bi moo ko wax nee nag képp ku may wooteel te ci neer rekk nga ko teg jëggal naa la parce que itam nag loolu duma jox barke waaw te xam nga lool rekk a xew léegi loolu rekk a xew di ko wooteel te teg ko ci neer koo kooku baaxul bu loolu wéyee itam maa ngi eh, jottali cant koo xam ne ñun ñëpp mënu bokk yilif muy Sidi Salih Mbacké kilifa gu baax la na mu daan defaat mu jot defati na ko ren te xam nga yonent bi nee na teranga na bu baamoo rek jàmm la waaw nee na teranga bu bu baamoo rek jàmm la tabarkalla tabarkalla teranga bi jóge itam ci kër Serigne Mourtada jot nañ ci pour wax la ni xam nañu ni ñun njaboot lañu te loolu lu am solo la waxuma la dara mais lettre biñ ko yónnee rek dama ne enveloppe bi jar nañu def ko ci album tabarkalla tabarkalla ndax rafetaay bi rek waaw pour wax la ni looloo fi ne ndax sëriñ Saliou eh, kilifa gor la waaw kilifa gor la ci eh, xurriya eh, ci maana mystique

ba da bëgg a tas sama yaakaar waaj ma sama yaakaar waaj man maa ngi defe noonu jàmbaar nga ni ko yow labbu de pire nga waajale ma da ngay bëgg a tas sama yaakaar waaj ma ne ko billaay parce que pexe ko tubaab yee ko moom moo tax nit reen bu bëgg a tos kare mu dindi benn oto boo xam ni voiture boo xam ni benn la rek may woo ko wallaay ndeysaan di benn voiture boo xam ni benn la ndeysaan ñoo yóbbu ko bopp mu gën lay ndeysaan benn limousine bu amul fen salit loo na ñu bare sax lay des ndeysaan góor gu baax la ndeysaan wallaay ndeysaan góor baax a baax la tabarkalla tabarkalla loolu kenn wasu ko gis rek tabarkalla ni ma bu ko mayee de ma ne ko ëpp naa de mu koy nag su ma demee bar sax sax di ko di ca dugg yàlla xam na ko ndeysaan sëriñ fàllu bés ma dem fa bay ñëw mu woo chauffeur bi ni ko yóbbul ma ko këram waaye boo demee bàyyi fa oto ba dégg Eh, du ko nangu ko ay bàyyi ko fa bàyyi ko fa te daw rek waaw ndeysaan chauffeur bi ñëw ba ñëw ak si ma ne ko gis nga oto kilifa dafa am oto surga am ma ne ko man surga laa moom kilifa la ma ne ko ba tax na oto bii waat naa ci yàlla ni bu mu ko jox nit ndax lu nekk nga ci biir oto bu am ay baar am ay télévision am lu ne ñu liggéeyal ko ko ca Italie te mu ne daf koy bàyyi ca sama kër ma ne ëpp naa def dañ ko ko jox nag tabarkalla tabarkalla walaay ndeysaan walaay ndeysaan yu la kenn mënul nettali tabarkalla tabarkalla mas naa fa dem bi may wàcc mi ngi tàng jër jër jër bu metti mu ne xale bi nekk bu tànkam laal suuf na duggaat ci biir oto bi xaar ma dugg ci oto bi xaar mu wax sëriñ ma dubb sa ni ko demal ànd ak moom nga won ko tool yi yëpp ndeysaan ñu àndandoo dem ci tool yi waaye maa ngi sonn ndax mbooyu mu metti dem nañu ba jolof yàlla xam na ko naka lañ ñëw yàkkamti naa ba jot ndox ba sangu eh, après nag may waxtaan ak moom mu ne ma xam nga lu tax ma def lii ma ne ko déedéet mu ne ma gis nga samaam Sëriñ Tuuba dafa am benn mbokk taalibe bu ñëw ni ko dama bëgg nga dimbale ma ma fay impôt mu ne ma moom nag ku tabe la woon nee na mu ne ko baax na soo yóbba toog ne mu toog ne bu xale yi dem di taxani nee na mu ànd ca ndax du bëgg toog ne waaye fekk joxe na ndigal ja say bu mu am nañ ko ko beral ne comme yàgg na fa nag ne ñu jaay sa yee mu am yëpp mu nekk xaalis bu sakkan nee na mu ñëw di ko tàggu si mu ni ko euh, loo doon tawat du affaire u mu ni ko waaw ne mu dindi xaalis ba jox ko mu ni ko duma ko laal ñemewu ma ko man li ma bëgg rek mooy lu tuuti lu ma faye sama impôt mu ni ko yaa ko liggéey di mu ni ko ci lu demee naan mu ni ko sa yi nga daan jël mu ni ko moom laa la jaayal mu ni ko boo jàqatee rek jaareel foofu waaw <laughs> boo rek jaareel foofu waaye bu fi ñëw mukk boo jàqatee rek jaareel foofu waaw ndeysaan te gisal loolu mu ni ma loolu la lay diggal ku fa ñëwër si ni la tarbiya la bëgg yóbbu ko ca tool ya rek <laughs> <laughs> <laughs> bu yàggee mu jariñ boppam jëriñ la wallaay ndeysaan pour wax la ni mag ñi rek la ñu am te itam dañ daan jëfanteek ñoom ci bopp wàll am na benn bés góor gi ni ma fekk dañu amoon ñawkat bu jógee Fuuta Jaloo mag ñi wax ni pusoom dafa am tur yàlla ñawam kenn mësul gis ñëw bu mel mu ñëw fii yàlla ate ñu miinanteeg moom muy ñaw ñëpp ni pusoom turu yàlla ci ne kenn du sol mbubbu machine ndax solee mbubbu machine dañ naan gan nga waaw dañuy defe ne gan nga mbubb puso rek ngay te moom nag li ko ci yàlla may mayu ko kenn mu am benn bés góor gi ni ma man daal ab lay jaxal la ma ci wàllu ñaw mu ni ma man bu fekkul woon ma dugg ci sa nijaay Cerno Amadou Wan moo daan ñawal sëñ Babacar Mbubb ci puso nag parce que ñoom daawuñu nangu ñawu machine ndax dañu naan espèce su ndondi yi rek koy def moo tax defe naa xam ngeen ndondi bu ko defee Ablaye di ñaw tabarkalla tabarkalla tabarkalla góor gi ni ma man daal jaaxle na ndax Ablaye ni mu ñëwee mu ni ma sa bàyyi Hadj Mansour ñëw na fi man mbubb mi musal dama mujj waaru ndeke Ablaye ko ñëw ma ne ko Ablaye li muy def ëpp na ma ne ko tabarkal tabarkal lu ko yàlla defal la te Ablaye comme daf ma taxoon tuuti na doom bu taamu bu ko defee ñu bari dañuy defee ne bu mu ñu jaaree ci man danaa ko man jox seen ñaw wante Ablaye dafa jafe won ci ñaw waxna ko ko bés mané ko yow ñett rek nga sawara nawal deug deug Cheikh El Hadj Mansour ak Serigne Tidiane ak Serigne Moustapha dafa len sawara ñawal tabarkalla tabarkalla waye mu wax ma rek lu tax ni ma ndax ñom dañu xam dañu xam mbubb ni ma dañu xam mbubb te dañu sel ni ma lolo tax benn bés góor gi ni ma waaw mënuloo wut basin bu rafet nga ñawloo ko Ablaay nga jox ko Jibril Gay Sàmb Ngooni ndax ku baax la te ku bëgg lu baax la te dafa attaché ci yow ma ne ko kon naa ko def yàlla at si mu wut basin bu rafet jox ko Ablaay mu ñawal ko góor ga sol ko nag ñëw mais da ngay sentir tabarkalla ni euh, mbubb bi rafete ci moom te xam naa loolu la ci góor gi bëggoon pour wax la ni yooyu yëpp boo ko dee seet seen ndono lay yéen rekk te àdduna nag ak loo ci mën a dégg loolu yàlla wax yonent bi ni ko culture tubaab yi dina ci évoluer mais taxagul ba solution am il faut dire la vérité taxagul ba tey solution am dëgg la nag alal moo not moo not ci affaire culture bi ba mel na ni culture culture culture ci boppam sax daani ki rek mboxos la ak loo mën a bien sûr Senghor dina di wax ni euh, la langue française c'est une très belle langue, etc., etc. mais luxa laaraba yi am na lu ci yàlla def waaw ah, am na lu ci yàlla def waxuma bi xew léegi waaw ah, bu njëkk bi laa wax am na lu ci yàlla def ndax moom la euh, Dur Thiam waxoon rëccu na ñàkk jàng moom la Doudou waxoon rëccu na lu tax jàngul arab ba bërki démb ci gàmm bi ñu génnee daaw maa ngi ciy waxtaan ak maître Abdoulaye wat président de la république mu ni su ma yëgoon renforcer suma culture ci wàllu arab pour nga xam ni lu am importance waaw ngeen di ci bàyyi xel te di ko def arabu cosaan ndax am na solo waaw ngeen di ko def arabu cosaan ndax am na solo waaw xam nga nun tara tund ko wax dëgg yàlla waaw jafe na de waaye baax na de baax na nag lool tabarkalla tabarkalla ñu di ci def rek lu ñu man lu ñu man lu ñu man ndax sëriñ bu Cees ku yéeme la dafa ñëw fi ma doon gàmmoo ca Cees keroog jël naa fa ñaari leçon yu am solo parce que bi may dugg si fekk naa ci bunt bi lu mat juróom juróom benn élève yu taxaw bi ma ñëwee ñu ni Pape Cheikh situation bee tax ñu di la seet parce que ñi lay entouré ni ñun ñamewuñu sax waxal la dara ci seen kanam mais duñu bëggoon fooy demati ñu bàyyi xel mag ñi ndax dañuy fatigué te dañ leen di pousse rek mu ni tabaxul ci ñoom ñu bëggoon lool rek wax la que nii ci suuf yow nga joxe ci des institutions ñu protéger leen te ay xale yu ndaw rek ma ko wax ma tenir ci kont bi ko ñaareel nag xaaj si sa jinge daf doon jàng alxuraan sëriñ Alla ji déey ma ni ma yéen da ngeen di way alxuraan léegi ma ne ko ah déet ma ne ko tartil la mu ni ma mukk du tartil waaye nan waxante dëgg da ngeen di way alxuraan rek ma ni ma tartil kenn ko fi manoon muy Maodo te man moo ma jàngal alxuraan te daan naa ma wax naa jàng saar mu jàng ko ba mu jeex moom mu répété waat ko mu ne ma ni ko yonent bi daan jànge la ko daan jànge waaye yéen da koy woy léegi ma xam ni argument bu ma ko opposé aw ma ko ndax ku la ni ma jàngal loo cay teg am ca teg waaye nag du tee am lu nu bàyyi xel te li nu bàyyi xel li ma Maodo daan wax rek ci la bokk fexe ba am kilifa rek moom boo jàngoon téere yëpp te amuloo kilifa it benn njëriñ la du la yalla xam na ko loolu itam ñu bàyyi ca xel te di ca nàmpal ñen nat naa am na nag ñu baax keroog maa ngi koy won lettre benn sama sët bu nekk ci daayira bi ma jot benn lettre ubbi ko fekk xaalis ci biir ma ni ko gis nga kii ma ni ko salaire bi mu jëkk a fayu génne na ci sama wàll te boobu petit jeune homme la léegi liggéey na ba jël retraite salaire bi mu mujj fayu génn na ci sama wàll ma ni ko te bu nu toogoon duma ko xam ma ni ko yooyu pas-pas barewul waaw ma ni ko yooyu nag moom mat a moo mat a roy ba tax na yooyu yëpp mu ngi ci tabarkalla tabarkalla ñu bañ ko forcer waaye rek fu ma xaj ñu dugal ko fa waaw te ñu bañ koo forcer nag waaw eh, yi fi xewit gor yi di ko doxal ngeen di ci bàyyi xel loo xam ne rekk njëriñ la te àndul ak ngeen seet rekk lu ci yelloo ci wàllu liggéey ngeen liggéey ci ndax itam maa ngi ci jotaat beneen lettre ñuy tàggoon ni dañu bëgg nekk ay rappeur ma ni woon damay nekk ba ñëw fi jox leen tontu bi ndax itam ayul ayul nekk rappeur ayul parce que dafa am lu xewoon waaye tuddul woon noonu waaye benn bi la mooy li ñu daan tuddee laawaan nun xam nañ ko Maodo sax duggoon na ci waaye mag ñi tere ko ñu ko du sa wàll waaye presque lool la eh, ñoom itam su fekkee dañ ci décider ñu digal leen rek ne leen ñaari charte ko tiq charte bu jëkk bi ñu boole ko ak métier ndax itam le, continent a besoin de bas pour développer son agriculture Moi, nga itam loolu tax agriculteur un marabout, gens qui agriculteur un nekkee loo rek ci lu mel bu exhibition yi la itam eh, ñu rek façon dignité loolu rek moo am solo li ci des nag daanaka rek moom ci seen loxo waaye nag pour affaire maison des esclaves ak yu mel noonu ñun duñu ko wax ñun cité des opprimés la ñuy wax ndax ci Maodo lañ ko jële nee na nee na njaam amul ku ñu tooñ am nee na amul ku ñu tooñ moo am dëgg la nag tubaab moom lu ko neex mu wax moo tax ñu di ko tudd foofu waaye maison des esclaves boo ko bëggee gis biir yaa ngi koy jële ci village yi nag dëgg-dëgg ñu ngi ci ñu ci biir willay ñu génne leen benn yoon rek moo gën a baax parce que nit ñi itam ku ñu yab rek lañuy la ñuy faji waaye ñi feebar ñëpp ngi ci biir kër yi waaw loolu kenn mësu ko gis waa ji loolu mooy li nekk ba na ñoom it ñu bàyyi xel ci exhibition yi ba xam mën na nekk te wàññi dara la dignité humaine loolu rek mooy li am solo la loolu bañuñu ko am na ci itam ñoo xam ne dañuy ni dañuy tàggoo pour def hmm. bob bi itam xale yaa ngi koy def waaw xale yaa ngi koy def sunu kër gi fii ci Tivaouane amoon na équipe nga koy def lu ci lu mu ci doon daal bu ànd ak mesure ayul bu ànd ak mesure ayul bu ànd ak mesure fekkee collaboration la nag diggante euh, diine yi euh, li ma ci nettali ni def nañu ko preuve la ci ne xam nañu ko waaw ci façon boobu nettali naa rek Senghor jëkk a denc mujj na jullit ak a denc yooyu ngi ci ba sama relation ak moom moo àggoon ci ma dindi kenn ci sama sët yi ci daayira bi boole kook moom parce amul woon doom bu jigéen bu góor rek la am yóbbu na ma sax ba ci kër papaam ni ma boo ko soxlaa nga jël ko ndax kenn nekkatu fi léegi wax na dëgg kër ga mucc na ayib moom mu ngi ca Paris mucc na ayib waaye rek bi ma ci xalaatee ma ni ko bàyyil ba ma gis sama avocat bi ma gisee avocat bi mu ni ma daal du jekk mu ni ma du jekk ndax dafa am aspect politique comme foofu la Senghor nekkoon mu ni ma dafay daal di am aspect politique te booya boo bàyyi rek bu yàlla dogalee nga bëgg dëkkukaay fii ci Paris mën naa la wutal appartement ndax moo fi gën a siiw léegi kër dafay laaj nga yóbbu fa ay nit dafay bari xaalis mais bu dee appartement baax na ma ni ko ah, dafa mel ni man daal am fu ma dëkk ca Ndakaaru moom